kon war nañoo xaal xoolaat mbir mi mbir mi ni muy du may Macky Sall ne ko sama na ma wax ni ñaar kenn du ko ñaar kenn du ko xeexe ko ban ak ban bu si njëkk mooy doole doole kenn waru cee xeex mën ko beneen mooy ban mu ne nguur nguur kenn waru cee ma doole ji ngay yàllaa la ëpp doole mu ne ma nguur gi nga xeexee yàlla la ko jox te balaa yàgg dara dina ko jële ci say loxo teg ko ci seen loxoy keneen réew mi Macky Sall yow njëkkoo koo jiite Senghor moo njëkk yor réew mi dara mu jële ci ay loxom jox ko Abdou Diouf yàggul dara mu jëlee ci ay loxom teg ci Ablaye Wade yàggul dara mu jëlee ko ci ay loxom teg ci sa loxo kon balaa yàgg dara yàlla dina ko jële ci say loxo teg ko ci yeneeni i loxo kon lépp na rafet te bu fatani wala ma fatali na len li yàlla jox na res amne ne bu ëllëgee yowmal xiyam yàlla dina ko laaj ndax Abdullah ibn Mas'ud dafa netal ne dégg na yurenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi Abdullah ibn Mas'ud ne dégg na yurenti bi mu wax ni yéen ñëpp ay sàmm ngeen sàmm bu nekk nag bu ëllëgee yàlla dina la ko laaj la mu doon sàmm lan la ak nan la ko doon sàmmee kon réew mi yàlla teg ci sa loxo yow président de la république réew mi yàlla teg ci sa loxo nga la waaye na ko sàmm sàmm bu rafet boo ko deful bu ëllëgee daa dajeeg sa boroom dina la laaj réew mu ma la joxoon ni Sénégal ci nan nga ko doon sàmmee te bu sàmm ba rafetul bu boobaa di nga am gàcc ci sa kanam borom kon góorgóorlul ci réew mi taxawul ci réew mi bëggal réew mi ndaw yi liñ soxla jox leen ko Sénégal bëriwuñu yaatuwuñu neex naa gouverner wante gouvernement bu toog rek yow sa bopp nga fi nekkal loolu pour lan bàyyil xel ni yow ma xiyam yàlla dina la laaj réew mi réew mu ma la joxoon muy Sénégal ci nan nga ko sàmme te bu boobaa daa wax réew mi ci nan nga ko yore woon mbokk yi nañ bàyyiwaat xel suñ suñ bopp ci réew mi monsieur le président bàyyil xel ci réew mi yàlla sa loxo la ko teg te ëllëg yàlla dina la laaj réew mi nan nga ko doon sàmmee salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu